ci eh, oh, hmm. eh, eh, ya, lañ kan nek non instant bi ni ci Umdatul Ahkam maanaam at yi nga xam parce que lolu dafa mën a bàyyi xel mooy tey mbër tey jigéen tey su fekkene ne wéru ko dafa nek dafa nañ nek ci bëccëgu weeru koor mbërëg bi di génn man ci guddi gi mbërëg bi di génn di génn di génn mu gis ne fajar jotna fajar jotna ñu tek ci 30 secondes mu gisat mbërëg mu gisat dara ji après nak arrêté nak complètement mu doog gis li nga xamne moy mooy wane ni léegi nag maanaam mbërëg bi jeex na complètement bu boobaa dañ naan ko da ngay téye sa bopp maanaam dangay ngay mel ni koom ku woor mm-hmm. dangay mel comme ku woor loolu ngay def heure bu mu ci arrêté nag même bu doon cinq minutes avant timis la arrêté dañ naan ko léegi à partir de moment boobu da ngay mel comme ku woor ba jant bi soo te téerewul dangay ngay fayaat bis lu tax parce que en tout cas da nga koy fayaat looloo tax atte mbërig gi ma ta xel mooy kañ la mbërig bi arrêté kañ lay jeex maanaam looloo tax ñu koy gëstu parce que atte yooyu yëpp dañoo aju ci biir loolu la ci atte yi am na yeneen mais loolu yenn lenn la ci yi nga xamante ne dañ ko koy tere ah te mu exposé bu baax pour leeral ko gaañu léegi wala exposé eh, ah, waa ji ah. question bi bu parewul de na. waaw non kon boobaa loolu rek doy na. ci ne voilà. voilà ba pare waa ji waa ji dafa tukki woon àtteeg tukki bi dafa denc dafa denc moom bu àtteeg tukki boobu dañee ci moom day daa di téye boppam moom tamit wallahu taala parce que àtte boobu parce que tey bu fekkete ne waa ji waa ji dañ ne ko du du du téye boppam àtte tukki bi du téye boppam àtte boobu noonu c'est-à-dire que problème bi par exemple tey bu fekkonte ne dañ naan waa ji même bu tukkee bu tukkee moom garawul problème bi nekkul ci waa ji ci ki gis mbërëg rek la nekk kon bu fekkente ne moom ki mu takk ab chrétien la wala juif la problème boobu dootul amati. Ah, léegi Ah. par exemple mu tukki jóge fu mu di ñibi këram. waaw ah. fekk yegsi na ci këram ci ci bëccëg bi. waaw ah. donc fofu day melni comme jigen bu set. voilà day mel comme un bu voilà ok donc hmm? kon ci acte bi euh, Ramadan primé ci kaw ni ko voilà même même ki même ki tukki. même tukki du wax comme damay tukki parce que mën mën na am ay mbir yu tax ba du dem. loolu moo tax bu ko neexee sax mu woor. voilà su ko neexee mu woor non mais su bëggul woor maanaam su nee du woor day bàyyi ba départ fi muy tukkee ci lay doo a dog mais maanaam ba génn dëkk bi ci lay doog a dog ba yor àttee tukki àttee ku tukki parce que mën na jóge fii ne par exemple damay jóge Lyon damay dem Montpellier. vol bi ñu annulé ko wala boog mu mu dem ba ci yoon bi oto bi am paan wala yooyu gars yi ne boobu finalement nañ dellu ba beneen yoon <laughs> loolu moo tax loolu loolu moo tax day téye na wallaahi waaw waaw. ah. léegi distance bi. waaw ak weeru ko rek di julli ak yooyu. waaw à partir de quelle distance dañ lay may nga commencé wàññi say julli wala bañ a war pour bañ a def ni waa ji def saay saay beeg yooyu nga war jógee Pikine dem Géeja Colobane ñu gis ko muy lekk mu ne non dama tukki Moussa Touré <laughs> c'est que c'est que tukki dafa am solo dafa am tukki yoo xamante ne dafa laaj distance dafa am àtte yoo xamante ne ci tukki dafa laaj distance mm-hmm. am loo xam ne laajul distance durée ah, ah, distance ak durée dafa am yo distance ak durée am yu laajul distance laajuñu durée comme par exemple Tim, tim ci tukki laajul laajul distance laajul durée même bu des 50 pas moi doxale le dëkk bi nga jóge ak bi mais amna all ne 50 pas la par contre bu la nga su mhm. bu heure julli jotté war a et cetera par exemple su fekkente ne massage ci bopp yi la bu ma nekkee ci diggante tey ma tukki ji par exemple ma jóge fii dem Jivor ma Jivor jege na ma dem Jivor mën naay massage ci samay xufu pendant trois jours loolu ay actes la yoo xamante ne aju mais sama koor du ma ko mën a dog ni ki noonu du ma mën a wàññi samay julli à de loolu parce que il faut mu am distance te loolu mooy mazhabu mooy waxu ñeenti mazhab yi xanafi yi mom lañ wax malike Shafi ak Hanabila rahmatullah al jami li lañ wax ñom ñëpp ño d'accord ci ben point moy il faut am lat il faut mu am distance bo xamantene ci jamono yeneen bi saa daan nañ ko daw bisub lemb yawmun wa layla moy bisub lemb guddi vingt heures lool nak à peu près mi ngi toll ci 85 80 jàpp vingt il faut mu am distance bobu lan motax ndax yeneen bi sallam hadith yi muy wax ci digënté guddi ak bëccëg la ko doon aj comme limu wax ne la yaxillu limraati limraatin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masafata yawmin wala la biduni di mahram dagalul ci digën jo xamantene gëmna yàlla ak yenen tam sallallahu alayhi wasallam gëmna yàlla ak bis bu mujj bi muy tukki distance bu toll guddi ak bëccëg te du ànd ak kenn ko xamantene mahramam la ci kaw lolu kon ci lañu xamé ne manam tukki bobu non kon da fay aju ci ci ci durée ci distance guddi ak bëccëg maanaam muy vingt quatre heures ci ci loolu la ñu xamee ni tukki na léegi nag mu am ñeen ba pare tamit xam nañu ne yeneen saa saa par exemple gis nañ ko mu génn dem Uhud Uhud tollul distance bi ak Medina tollul noonu te wàññiwul julleem boolewul julleem gis nañ ko par exemple ah mu dem ah, ah, ah, mu dem xandak xare xandak mu génn dëkk bi tuuti te wàññiwul julleem ah boolewuleen

comme par exemple lundi laa génn Lyon ma def Paris mardi mercredi jeudi vendredi may ñibbi si loolu mën naa mën naa wàññi parce que def naa Paris trois jours révolu maanaam loolu noonu mën naa wàññi léegi ci kaw loolu su fekkente ne day mat quatre jours nag duma ko mën a wàññi su dee xamoon naa ne quatre jours laa fay def loolu moom moo tax am na nag ñoo xamante ne ku mel ne Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ci salaf yi moom daf ko at ak ñeneen ñoo xamante ne ñoom wax ju gën a tumuraanke lañ wax parce que parce que li tax mu at ko ci 19 jours mooy dañu ne ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee Fathu Makka 19 jours la fa def mais problème bi mooy loolu noonu dafa tombé parce que beneen bi mooy dafa xamul woon kañ lay dellu si parce que xamul na ne am na aajo bu mu fay dox saa yu fajoo day dellu si loolu mooy problème bi tey par exemple su ma tukkee Paris ma daal man de Paris ma ngi fay dem bugguma baa toog aajo rek laa fay def sa yu fajoo rek na faju saa

mooy loo xamante ne mën naa ko di par exemple sama passeport lay defaree ji te nee nañ ma ci benn jour wala ci trois deux jours lay def ma dem defaree ji ko mu def deux jours ma dem toog mbir mi ëpp deux jours ma toog troisième jour mbir mi ëpp ko ma toog bu boobaa mën naa wàññi samay julli ba keroog may mbir mi xaju may doog a dellu si boobaa mën naa wàññi samay julli mën naa leen di boole mais li ma mat loolu moo tax yeneen bi sallallahu alayhi boole woon dix bi mu nekkee Makka léegi nag am maa nag ñi ngi ñi gën a tumuranke gën a tumuranke gën a tumuranke mooy li Ibnu Taymiyya wax ci wax jooju moom daf ne amul da amul limite amul limite nii ci distance nii ci moment lépp lu ñu mën a tuddee tukki rek ci aada maanaam lu mën a wax ne tukki la rek boobaa dana baax loolu la mooy di gën a tumuranke parce que loolu

de moo lay des hukmul mukim lañ am parce que dañu am al musafir am al mukim ak ko la am manam ko xam day tukki am ko nous dafa nekk ci dëkk bi melni ku dëkk dafa dëkk dafa nekk dafa dëkk ak ko nous la yor ki nga Nous moy ñun mom dañu dëkk ñun yoruñu ku ñi nga ku vacances pendant un mois quinze jours ñoñu ñooñu lañ voilà visa touriste ñooñu ku dëkk la ñu yor ndax dinañ fi def lu tolloog lool par contre bu ñu fi dul def 3 jours boobaa mën nañoo wàññi seen julli ni ki noonu mën nañoo bañ a woor wallahu taala alam waaw waaw euh, su fekkee da nga def chaque jour par exemple euh, ma dëkk Dakar liggéey Thiès. waaw xeexal Thiès ça fait deux cent soixante dix waaw may may xëy Dakar. waaw yendu Thiès ba ba Timis. waaw ba ñu si Dakar. waaw est-ce que sama sama cristal ak sama taxisane dama waaw loolu mën nga koo wàññi. loolu tamit chaque jour mën nga koo def donte donte sa jamono diiru jamono moom ngay def chaque jour mën nga koo def mais nag nañ bàyyi xel benn affaire bu dee woor la te wóoruloo ko su dee woor la te wóoruloo ko. bu boobaa xamal ne lip loo wóorul da nga ko fayee ji bis xamal loolu kon bu boobaa kooku liñ koy digal mooy nay wóor moom moo gën ci moom wallahu ta'ala a'lam léegi ci question boobu léegi na ñoo xam ne waaw di préfère bien que may na ñoom a wàññi waaw waaw léegi ban ban moo ci gën boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci boobu masala ni nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye rahimahumullahu taala ñoom dañ ñu wàññi bi obligatoire la ku wàññiwul da ngay am bàkkaar ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci jumhurul ulama rahimahullah dañ ne déedéet wàññi bi ruxsa la dañ ko wàññi waaye yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamante ne moom la wax ne inna allaha a an yu'ta ruxsahu kama yuhibbu an yu'ta uh, azaima yàlla borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg ñuy dikkee yi nga xamante ne ñoom ñooy ay woyofalam lépp lu mu woyofal dafa bëgg comme cadeau la dafa bëgg nit ñi accepté ko comme ni nga xamante ne tey bu dee dafa insister ci benn mbir nit ñi accepté loolu doxale ko ni mu ko bëggee loolu moom mooy wone wàññi bi mo gën matal bi hmm. wallahu taala alam Moustapha pour revenir ci question bi kon bu nekké da ngay tukki ñaari condition ñoo réunir pour nga mën a wàññi julli bi mooy euh, su quatre à quatre vingt ak ñetti fan est-ce est-ce qu'il faut que ñaari condition yi réunir il faut que ñu réunir moy nga def mais mais mais maanaam moins de 3 jours tey par exemple so jugee fi di dem Sénégal mané damay dem Sénégal def fa un mois bu boobaa ci yoon bi mën naa wàññi mais bu ma ba yegg Sénégal damay matal parce que dama fa dama parce que dama yor ku dëkk voilà voilà waaw waaw waaw ah non question la. waaw question la question la. waaw xaaral xaaral baal ma. waaw boo jógee fii boo jógee fii di

nga nekk fa te xam ne jugee guma fi léegi wala boog circonstance bi day maanaam li ma fii dox mën naa faju tey tey tey wala mën naa faju suba suba suba question bi yëpp foofu lay aju c'est ça mooy mooy lu la fa téye voilà motif motif bi motif su fekkente ne dama fee war a toogaat ne ah comme que fi mu toll ah nday xadi nee na ma toogaat ba ci kanam naa toogaat une semaine ah naa toogaat une semaine boobaa da ngay tàmbalee julli normalement léegi nag tey su fekkente ne nag nga ni ah waaw léegi comme nag am naa daal lu ma fii lijjanti loo xam ne dama ko war a yóbbaale Lyon moo tax. Mhm. bu boobaa loolu ba pare nga ni loolu nag normalement war na mën a génn tey génnul tey ngay wàññi nga ni suba suba gé nga nga nga continuer di di wàññi. après nga dem ba journée bi jeex lijjanti woo ko nga ni kon naa xaar ba gannaaw suba kooku tam mën ngay wàññi ba pare mën ngay boole julli ci ci loolu lay aju daal wallaahi taala soo jëlee train par waaw yi ngay wax noonu. waaw benn waaw loolu euh, <coughs> loolu bu boobaa doo julli timis ci yor bi su fekkente ne durée trajet bi du dem ba fajar su dee durée trajet bi du dem ba fajar. do julli timis ci yoon bi li tax do ko julli mom moy train moy train moyen de locomotion la voyage la bo xamantene train du sax du sax du taxaw melul comme euh comme avion wala bateau train bo ci nekké da nga yegni da yeungatu ci kaw lolu nak comme saxul boba ba paré durée de voyage bi durée wul maanaam foofu mënoon nga julli ci train bi la mais julli train bi farata mënoo koo def ba mu des su fekkente ne train bi day di distance par exemple day bu timis bi daf la ci fekk ci yoon bi ba pare mbir mi day dem ba fajar bu boobaa nag da ngay julli ci train bi ak ni nga mën a jullee da ngay a diir xibla bi mouvement boo mën a def nga def ko comme ndax li alquran wax fattaqullaha mastataatum na ngeen ragal yàlla looleen man te ragal yàlla mooy def li mu la digal bàyyi lim la tere mu ne nang ci def lim la man li nga man kon boobaa da ngay taxaw taxaw ma man ko ko taxaw kabaar amul ay nit ñi dañ may gis damay rus ak yooyu loolu amu ci da ngay taxaw allahu akbar nga daal di kii ah <laughs> ah non non kenn du la wax dara non kenn du la wax dara déedéet waaw même eh gis naa eh eh, eh, eh non xaaral ah, ah, kii ah, aéroport bii ak aéroport non pas ci kii bi ah, ci ci ci ci emba fi ñu embarqué gars yi. daal ak ak ah. julli naa foofu yëpp julli naa fa. man niki noonu voilà niki ah, gis naa ku julli fii par de fii ci gaar bi ci biir gaar bi noonu mais kenn du la wax dara. amul kenn ku lay def dara. diggante Dakar ak yooyu julli amul benn problème. wallahu taala waaw waaw waaw. waaw waaw kay ah géej boobu nag da nga koy matala ah. waaw léegi da nga koy fay boo demee kër ga rek nga fay ko incha allah ok. muy julli bee boole ñaari jéeg waaw waaw waaw. non parce que train. parce que train stable. c'est problème de stable et d'instabilité. non non non c'est que non non non c'est ni muy ni mi ni takkoo dafa takkoo ak suuf si. ak ak ak ndox mi. voilà takkoo bi mu takkoo ak ndox mi moom moo tax mën nañ ci julli. ba pare bato day yaatu xam nga bateau dafa yaatu bokkut ak train bi ni mu mel ni ngi noonu par contre avion avion day taxaw ba pare bu bu taxawee maanaam boo ciy bougé doo yëg doo yëg mouvement voilà voilà ah ah non taxawul ak suuf si mais le fait que muy taxaw taxawaay boo xamante ne day jug du yëngatu loolu moom moo tax wallaahu alam voilà ci moment yooyu noonu moo tax ñu wax wallaahu alam waaw. parce que keroog maa ngi doon ñëw ci ci kii affaire comment loolu mooy hadith Ibnu Umar bi radiyallahu anhu bi yenent bi kok moy hadith ibnu umar bi radiyallahu anhu mune ak anas anas ibnu malik tam dako wax netal radiyallahu taala anhu mune ne bi sallallahu alayhi wasallam bu daan tukki buñu toge ci kaw manam da dan tek taxu tok ci kaw warwayam di julli mais daf ni naafila la doon julli naafila la maanaam loolu naafila lañ ko meuna def lolu motax mu am différence entre naafila ak farata loolu moo tax différence bi am diggante naafila ak farata loolu sharia moo ko tëral comme tay mu loolu moo tax tey booy bu yeneen bi saa am ne genn wàllu payu julli ku taxaw la ki julli ku toog am maanaam ku julli toog naafila bu may jullee naafila bu ma neexee mën naa toog julli ni allahu akbar di sëgg di siggi et cetera mais su fekkente ne maanaam damay def nii ruko def nii sujjóot mais bu ma au lieu ma taxaw damay toog par exemple mën naa toog mais génn wàllu payu kii naafila laay am loolu maanaam différence boobu la ni ki noonu tey mën naa julli mooy xibla bi su fekkente ne damay julli naafila su fekkente ne dama nekk ci warukaay bi alors que julli farata loolu manuma ko ndax dañ ni ma fokk mu julli xibla fa ay na ma takun fa fa nu mu tudd fa wallu al shatral masjidil haram manam foog mo djublu jublu bi niki nonu tamit taxaw bi ak tok bi digeenti bi yenen tou sallallahu limu wasallam li Imran ibn Husayn ci hadith bi nek ci Sahih imam Bukhari rahimahullah bi mu naan sall qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambi jullil nga taxaw soko manul nga tok soko manul nga wet tek bobu dafa amone basour moy jangore Kajoor moy hémorroïde mom la amé won niki nonu mune yenen tou bi sallallahu alayhi wasallam tamit jox différence entre tamit djulli ci kaw warway ak ñàkk julli ci warway maanaam julli ci kaw waruwaay moo tax Anas daan ni yeneen bi euh, euh, am ñoom Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhi nga xam ne ñoom ñoo ko doon teeru ma gisul woon bi sallallahu alayhi wasallam def ko du ma ko maanaam loolu yooyu yëpp day tegtale parce que sinon danaan wàcc julli yooyu yëpp maanaam mooy wane teqantal bi nekk diggante julli farata ak julli naafila waaw surtout suuf waaw ci sa warukaay julli ko ba pare foo féete baax na voilà à moins que waxtu daruri bi di génn voilà voilà à moins que waxtu daruri bi di génn bu boobaa mën nga julli maanaam waxtu mooy waxtu bi di génn complètement comme par exemple bu dee tisbaar wala takkusaan ñu dem ba jant bi di sox complètement boobaa moom obligé da koy jullee fi nga xamantene fofu nga nek wallahu taala wa waaw léegi bu fekkee par exemple hmm. fekkee takkusaan war a wa avant may jël kanam bi julli naa tisbaar ba pare waaw na ma ni bala may yegg timis dina jot wala dina jàll boobaa ndax li jël na may jiital julli tisbaar rek après ma wala wala wala ko julli si biir loolu ça dépend il génn dëkk bi parce que wàññi mënu ma koo def nit ki noonu boole feeg génnu ma dëkk bi loolu il nga comprendre ko ci kaw loolu kon boobaa li ngay def mooy tàkkusaan bi da nga koy julli ci biir terrain bi mais doo ko julli ci ci ci ci wala avant ngay dem wallahu taala boole mooy su may tukki lay boole. su ma nekkee ci biir tukki bi laay boole lan si boole buy fokk ma génn dëkk bi doo ko boole boo waaw mën nga dem ba egg sax boole waaw mën naa dem ba yegg boole mais sous condition ma bañ faa nar a def masala ben, compliqué le, compliqué il na la rek. si a wax ko. un julli ni yow même a il bien. un est-ce que di permettre. benn masala la masala bu am solo la. la wax la plusieurs fois. non du tey du tey maanaam ay fan yu la maanaam waxtu waxtu yi parce que xat-xat yi mooy lan parce que il faut ñu xam lan mooy xat-xat parce que xat-xat du ma ko definiir man du man maay définir samay xat-xat parce que tey su fekkente ne dañoo ubbi buntu ne gars yi euh, euh, euh, boole leen nu mu leen neexee kon le fait que charia tëral waxtu wu nekk mu am charia comme ni alquran wax inna salata kanat ala mu'minina kitaba maquta yàlla dafa def julli mu nekk farata ci julli ci ñi mu nekk loo xamante ne dafa am waxtu konontoon wax jooju ak xadiis yi nga xam ne ñoom ñooy wane ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon jullee waxtu wu nekk dootuñu amati njariñ yooyu noonu dañuy màbb kon kon kon dootu fi amati njariñ moo tax jumhur lu ëpp ci borom koo xam ne rahmatullah mu bañ affaire boobu ne loolu mënta ne lu ma tabaay xel jumhur ulama dañ ne ala kulli xaal amul dara lu mën a tax nga boole ba mu def tukki il faut ñu comprendre affaire boobu c'est-à-dire que du loo xamante ne dañ koy woyofal ci kaw loolu kon ñi nga xamante ne mooy am na mbooloo ci Shafi'i i ñu ngi noonu ñoom euh, euh, euh, am na yenn ci borom ahlul hadis et cetera yoo xam ne daganal nañ ko comme ni nga xam ne noonu lañ ko wax Rabia sëri e sëriñu imam Malik ak Ashhab benn taalibe bu imam Malik rahimahullah et cetera ñoom daganal nañ ne nit ki mën na boole tisbaar taksaan même bu nekkee ci biir dëkk bi su fekkente ne defu ko aada ba noppi nekk na ci circonstance yoo xamante ne de toute façon mënut a julli mais par exemple man it damay liggéey ji moo tax bu fekkente ne fi may liggéeyee mën naa faa wut place bu ma jullee il faut que ma essayer tous les pions pion yëpp il ma essayer su ma mënul utiliser amul benn bu ma mën a réussir ci lay doog a defee loolu ci fatwa borom xam-xam yooyu ànd ak ne fatwa boobu change la maanaam wax la joo xam ne dafa beru boo xam ne mooy mooy ndiku ko moo gën di ko appliquer wallahu ta'ala a'lam waaw euh, euh, wàññi julli quoi waaw wàññi julli mooy wàññi foo déggee ñu ne da ngay wàññi julli mooy tisbaar

abadan abadan abadan loolu mënta nekk abadan ah, loolu mënta nekk kon li muy def mooy day julli tàkkusaan ñeenti rakka su paree mu doog a julli timis fu mu fekk gaa baax na fu mu fekk gaa yi baax na su fekkete ne fekku leen ci dara après mu rattrapé ndax lan ndax alquran ndax alquran daf ne inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta yàlla dafa def julli mu nekk farata ci kaw julli ci kaw julli ni mu nekk loo xam ne dafa amee waxtu maanaam kon ce qui veut dire que ni waxtu bi njëkk bi nga war a julli ko beneen waxtu bi ba noppi tamit li koy gën a tegtale mooy jour xandax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom julli wuñu woon tisbaar tàkkusaan ba timis bi di jot ñu doog a conscient que ni heure bi na heure bi rëcc na leen ñu daal di terewul dañoo julli julli tisbaar sëlmal julli tàkkusaan sëlmal doog a julli timis ànd ak xam gi ñu xam ne waxtu timis dafa gàtt te mën naa daal di génn wallahu ta'ala est-ce que euh, euh, dafa am kii dafa am sama benn côté boo xamante ni waaw mën ngeen a julli de tisbaar ak tàkkusaan ngeen ngeen ñaar yëpp mën ngeen a julli ndoo mbooloo waaw ah booy fay waaw fay ak comme parce que dañ ne al al al al al qada'u tahkil ada ay al qada'u yahkil ada maanaam loolu la maanaam mooy fay day nettali day day reproduire exactement li nga xamante ne moom mooy jooxe gi. mais am amul ñuy wax ne bu fekkee ci jàkk boo xam ne dañ fay faral di jullee. Hmm. di diwaat beneen mbooloo euh, kiiwul lu ñu sopp parce que day day mel ni dañuy defaat beneen mbooloo. bu fekkee loolu Maliki ñoo ko wax rahimahumullah loolu maanaam dañ ne su fekkente ne jàkka ji parce que en fait loolu mais ñoom li li tax ñu ñu ñu di ko tere moom mooy dañuy bañ indi fitna tey par exemple su fekkonte ne mën nañu permettre jàkka ji tey buñ jullee ba pare ñu beneen mbooloo ñëwaat julliwaat ci même même heure bi kon bu nit ki saa.